jàng inna anzalnaahu ñaari yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon xul huwallaahu ahad ñaari yoon julli googu boo ko defee sëriñ Sooy bu Mbàkke xamal nañu ne des na xaraamal ci saw yaram safara te boo ñaanee sa xaajo borom bi subhaanahu wa taala dina la ko defal mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral ga dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaibou Mbacké page 141 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi